moo ba alors euh, monsieur le maire. oui. bu dee yaa ngi euh, dégg ndax mën nga ñoo defal rek euh, situation bi ak euh, naka la liggéey yi di demee foofu nga xamante ne moom moo di ca commune ba. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di rafetlu seen émission bi wax dëgg yàlla département de Bakel am na ay cinq communes yi nga xam ne ci biir ndox la ñu nekk. Mhm. donc commune bee ci la bokk. xam nga commune Bélé arrondissement Bélé dafa dafa tënk ñetti commune mhm. mooy commune Sinthiou Fissa commune Bélé commune Kidira mhm. donc yàlla def sax Kidira dafa am benn xale bu fa ñàkk bakkanam mhm. donc ci biir commune Bélé dafa am dëkk bu ñuy wax Jaaligel famille yu bëri dañoo toxu ñu yóbbu leen ci école yi malheureusement école bi tamit am ndox ñu jege jëlal leen foofu duggal leen ci biir yeneen famille donc euh, commune Baalu Mm-hmm. noon la jaawara pareil mudéeri pareil Bakel pareil mm-hmm. li nga xam ne nag tey jii ñun gis nañ ko comme Bougane dafa ñëw mm-hmm. balaa mu ñëw dafa annoncé nee na dina ñëw seet si sinistré yi ñëpp kontaan ci parce que mu def benn geste bi nga xam ne si geste noble ndax jàppale koo xam ne dafa néew doole dafa nekk ci lorange loolu yàlla moo ko santaane bépp doomu aadama donc ñaawlu naa nag li nga xam ne waa gendarmerie nationale ñoom dañoo waroon nekk force de l'ordre mais waruñu nekk force pour le désordre parce que ñi nga xam ne ñu ngi toog di yaakaar ndimbal di xaar ñii ñi nga xam ne ay responsable lañu jël seen carburant jël seen ndimbal jël uuti yoon bi jël yoon bi di dem ba Bakel ñu ne ko président dina ñëw fii yow kenn waru fi ñëw jàppale gaay te président moom mi yàlla rek moo xam lu mu indi parce que man am naa convocation dafa moom day survoler ci territoire Bakel ci département bi. Mm-hmm. dafa convoquer tous les maire le président conseil départemental les services administratifs. Mm-hmm. ci aérodrome bu Bakel mu ne du dugg fenn. donc ñëw na ba ci aérodrome bi. il a changé le programme. Hmm. mu dugg ci oto yi mu ne day dem même bu fekkente ne benn dëkk daf koy gis. parce que xam na luñ ko wax foofu ci aérodrome bi parce que bu fekkente ne survol la loolu jarul ngay ñëw. Hmm. parce que boo defee survol ci avion doo xam doo gis doo kenn du la gis. Hmm. ni nga defee Kédougou boo ko buggee def noonu fii ci xam ne Bakel mooy cela la dire que votre déplacement est inutile. donc loolu nag la gis. mu ne léegi day jël oto dem ba kel xool dem arundu dem golli mais xam na ne même bu jëlee oto foofu oto mënu ko dem tey ji donc lu gën a leer mooy gendarmerie nationale ñu nekk gendarmerie national ñu bañ a nekk gendarmerie Pastef très bien parce que gis nañu ne administration arrêté c'est un écrit pas arrêté verbal mhm. kii toog Ndakaaru fii te lu ñu gën a ñaawlu ñun département de Bakel. Mhm. ñu nekk ci mbënn bi ñu ñàkk ay njaboot ñàkk ay sans périmètre agricole ñàkk suñuy bagage Ousmane Sonko en tant que premier ministre di woote arena di def ay geste politique di dajale ñii ñii nañu ñëw ku nekk indi cotisation bon di def ay geste politique loolu woon na ne moom Sénégal ñun ñi nga xam ne ñooy département de Bakel département de Kanel département de Matam département de Podor ñun du suñu ay population sénégalais. Mmh. Très bien. Euh, très bien euh, monsieur le euh, maire euh, ci situation bi nga xamante ne ne defal nañu ko actuellement foofu mu nekk nekk maire bu Bélé wax na ko nag seize commune la am mais également ñëwaat na ci benn doomi aadama bu fa ñàkk bakkanam ginnaaw ndox mu bari mi nga xamante ne am na foofu mais également Euh, changement de programme bi mu annonce bi mu wax euh, jëmale ko ci le président de la république mi bëggoon def euh, xoolal boppam ci jaww ji mais finalement bëggoon jël tali bi te yoon bi foofu ndox mi bëri na boo xamante ne ne oto sax munu ko mënu mënu fa mënu fa jaar. gis nga soxna Fatima man je crois que li am Bakel actuellement ni ak ce que président et son gouvernement sont en de faire dama jàpp ne benn côté mascarade la. Sénégal képp ku seetaan télévision yi xam nga ne Bakel instant nit mënu faa dem ak oto même ñoom buggaan dafa am fu ñuy yem tey jii nous sommes dans une nouvelle air des technologies à travers ce drone pour professionnel mën ngaa xam li xew foofu yëpp ñu envoyé li image nga seetaan nga soo paree nga def un discours à la nation mais particulièrement adressé waa Bakel ak waa Kédougou mu rek am fortale neneen tey di discours de la nation lay def mais bii waa Bakel ak waa Kédougou laay waxal dafa am benn émotion ak benn affection boo xam ne moom la askan di soxla su see ci situation bii on se rappelle que moment bi émeute di am Wally Seck amoon na soit concert à Paris les militants du Pastef dem tas concert ba ne leen c'est pas normal Sénégal di tàkk muy concert Youssou Ndour dafa annulé concert actuellement nii tey stratégie de communication ak d'affection pour am la majorité à l'Assemblée nationale bi nga doon jekk bu fekkoonte ne le président du PASTEF amoon na des conseillers. très bien. Mm-hmm. averti. Mm-hmm. dañ ko war wax ne lancer benn cagnotte à l'ensemble des patriotes. très bien envoyé et adressé. merci beaucoup à ceux qui sont ci bi Bakken. très bien ma daaneel rek. oui très rapidement s'il te plaît pour boo paree ñu mën a jox ñeneen ñi. oui je sais je sais am na ku ne ci euh, ligne bi. non bu nekk ci nañ ko bàyyi mu man mën naa ko bàyyi mu jël. mais ñu may ñu rek ñuy daaneel voilà amul problème. ñu jël député euh, député Bara euh, moom itam am na ay kàddu yu mu ci bëgg sànni alors bu fekkee mu ngi nekk ci ligne bi honorable député Abdou Bara. Euh, ñu ngi lay euh, nuyu te itam euh, di wax rek par rapport ak la situation nan nga ko jàngatee. waaw Fatima maa ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan ñëpp di nuyu ñu si plateau bi depuis soo ba léegi xol bu naqar la am ci koo xam ne danga nga doon xeex démocratie ba dugg si kaso. tey ku ne xam na ni tey le dictateur rampant mooy ñëw ci réew mi te li xew lépp depuis démb lañ ko programmé Ousmane Sonko moo joxe ndigal pour ñu jàpp Bougane Gueye loolu xam nañu ko te li am solo rek mooy nit ki nu mu mën di def ak nu mu mën di doon te jàpp naa li nga xam moom la Bougane Gueye Dany di def ak ñi nga xam mooy coalition bi mu àndal Sénégal yëpp dañ ko war a rafetlu parce que fi réew mi toll am ay nit yoo xam ne dañoo am ay jafe-jafe nekk ci mbënd ñu déplacé wu daw ay kilomètres yóbbu ndimbal yow mi nga xamante yaay premier ministre nga waroon a def loolu defuloo ko nga nekk si am po ak di caaxaan ña def pare nga santaanle pour ñu teg leen loxo loolu jàpp naa lu ñaaw la réew mi nag bu si tiltu jóg. fa muy jëm baaxul parce que Ousmane Sonko boo xoolee lañ ko doon def ñëpp di ko naqarlu tey loolu la ñuy def Bougane Gueye ak coalition bi mu àndal ñëpp ñu cell réew mi dafa bari ay naafiq yoo xam seen intérêt bopp kese moo leen ñor en tant que membre coalition jàmm ak njariñ maa ngi laaj sa appel tout le Sénégal ak sénégalais yi ñu veille ci li nga xamante ni mooy dictature rampante bi war a am ci réew mi te Ousmane Sonko ak Diomaye yi boo ko imposé ci li nga xamante ni mooy démocratie Sénégal man mënuma nangu fa nga xamante ni tey mooy Bakel maatam suur bi nga xamante ne ndox mi mi ngi yàq maanaam kër jàmbur yi am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee dañoo waroon a dem ci hôpital yi ngir def jalis suur boobu am na ñoo xamante ni dañoo war a xëy dem hôpital pour am doom suur boobu seen dund yàqu na suur boobu seen mbay yàqu na ay nit jóge fii am intention bu rafet dajale seen alal dem pour jox askan wi yow nga dajale sa alal ngir nekk di fo ci loo xamante tewu ko fenn lu ay caaxaan. yaakaar naa ne tey nga bëgg ni maanaam ñooñu nga xam ñooy dox dégg tey fenn moo ko ëpp doole yebal ay moo ñu baar leen ci ban état la nekk ci ban réew la nekk lii nag bu fekkente ni tey xool nañ ko ba mu jàll ëllëg ñépp la ñuy jàpp parce que Ousmane Sonko man mi jaxasoo moom xam naa jikkoom du nit ku baax Macky Sall moo ko gën parce que tey jii lii nga xamante ni moom lay def opposition bi ak sénégalais yi di toog ci seen bopp lu ko neex mu def ko lu ko neex mu du mujj fenn nekk xam ne dafa arrogant yaakaar naa ni kooku nit la koo xamante ni buñ si jugul day nekk dictateur boo xamante ni li muy imposé nit ñi mooy ñëpp dañoo war a nekk passif passivement te loolu du am si réew mi. parce que ku ko nangul tudd Abdoulaye Wade nanguloo ko Macky Sall doo ko nanga ay xale yu ndaw yoo xamante ni biñ juddoo yàggul te si juróom-ñaari weer lépp a seer amul solution pour bi ñu am mooy dañuy ñi. jël arène bi nga xamante ne arène nationale bi nga bi nga xamante ne Dakar Arena bi nga xamante ne quinze mille personnes ñoo fay jël wala trente mille personnes nga xam ne matul sax benn député ñu bëgg a wan askan yëpp wala addina bi wane ni ñoom xaw nañoo am nit ñi bëgg nañ leen mooy wane ne la Macky Sall doon def bu ko askan bëggee sonal wala maanaam euh, nit ñi jéppi ko mu jéem woo benn grande manifestation bu mitin pour wan euh, opinion na saa international wane ñoom mais non day nax seen bopp. gis nga le 17 novembre Sénégal yëpp daan man ko sanctionné régime bi jox opposition yi majorité parce que noonu la ko doon waxee pour ñu mën a jàll loi xamante ne mooy tribunal su ngóor jigéen. ak peine de mort bi ak offense aw chef yi parce que ñoom ñu ngi saaga kilifa diine yi ñu ngi saaga nit ñu baax ñi képp koo xam jóg nga pour liggéey réew mi ñuy bëgg laa gàllankoor ñun nag pare nañ pour tout ndax ku mën a dékku Macky la war ngaa mën a dékku Ousmane Sonko bi nga xamante ni tey lu mu am ginnaaw yàlla bokk naa si lu ko may bëggaan moom bokk na si très bien euh, merci beaucoup honorable député euh, Cheikh Abdou Bara euh, ci euh, kàddu yu am solo yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko rek ci doxalinu réew mi ci juróom-benn weer yi ak arrestation yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku saasune jëmale ko soit ci ñi la di opposants yi wala ñi nga xamante ne ay taskatub xibaar lañ depuis tout ce temps puis dinaa ñëwaat ci yow léegi en attendant ma ma ñëw ci ki nga xamante ne moo di Saliou Joseph Saliou Joseph dégg nañ tout à l'heure ki nga xamante ne moo di maire